voilà yéen ñi duñu seetaan ñoo ñu fii sur la page Barthélémy Dias l'officiel donc euh, buntu direction générale des élections et on nous apprend que Macky Sall et ses sbires veulent invalider la liste de Dakar donc euh, woo ay huissiers ñu ñëw nee nañ huissiers mënuñ ñëw constater forfaiture bu ñu nekk nii di dem. non tu as raison non tu as raison non tu as raison non tu as raison non on va loolu rek lañ bëggoon loolu rek lañ bëggoon ñoom bu ñu ko constaté rek yéen continuer. Thank you. voilà ñooñu fii ci fii ci direction générale des élections ak Déthié Fall ak donc euh, fas tout simplement donc Barthélémy Dias moo ñu taxaw ak ñaari huissier ak Déthié Fall parce que dañoo bañ huissier yi dugg ci biir pour mun a constater forfaiture bu ñu nekk di def nii à savoir vouloir invalider la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar voilà donc les les huissiers vont constater aussi le refus qu'on leur a opposé d'accéder à l'intérieur de la direction générale des élections pour mun a constater Euh, lu ñu nekk def nii. yow damal la nga posté. damal nga toog damal direction générale des élections moo ñu le maire Barthélémy Diaz est là. ay ndaw ànd ak ay huissiers comme nu mu ko waxee rek yéen ñii di ñu seeraat nii fii ci buntu direction générale des élections euh, le maire Barthélémy Diaz moo fi egg parce que dañoo. jot ay xibaar ni dañoo nekk di invalider liste Yewwi Askan Wi à Dakar. Alors que le code ne dit encore dans la phase Maintenant. de pouvoir changer. On a les trois jours pour changer à la minuit. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, ils veulent qu'après aujourd'hui à minuit, on ne puisse plus être dans les délais normaux. Rappelez-moi dans nous allons changer. Mais c'est des gens qui ont démissionné. Ils ont démissionné de la liste, ils ont L'acte l'acte est personnel. Comment quelqu'un peut désister et tu dis qu'on le remplace? Comment c'est possible? constatez-moi deux choses. L'empêchement. Ok, voilà, c'est là, c'est là. ñëw leen gars yi ñëw leen nii ci Tebong voilà donc le maire Barthélémy Dias va faire une déclaration ak presse bi pour expliquer lu xew fii nii voilà je pense que li moom leer na leer na li nekkatul jaay doole li yebel ak maa tey na wax ji leer dama ne dee su jotee ku deewul doo gor doo doomu gor man askanu Dakar lay waxal ndawu dakaari yi lay waxal président Macky Sall nag dañ ko dumma ay dumma yu métti ci élection locale yi doo nañ ko presque de cent mille voix 2017 ba mu ñuy waaxu ci ay de mission mu jàll bii nag nee na comme mënutul sàcc nee na day jéem a xool naka dañuy forclos dama ne suñu list juróom-ñaari ñi dafa nekk les deux dernières personnes ñoom ñoo jël ñoom ci seen responsabilité ñu ne ñoom dañuy désister comme démba nu Madiop Diop maire de Grand Yoff waxee day désisté loolu yoon moo ko may candidat bu nekk te yoon nee na am nañ ba tey ba minuit ku mu neex mën nga désister te mandataire bi am na droit changer la ñooñu bind nañu seen lettre de désistement ñu indi ko ñoom ñu jël lettre désistement yi ñu ne leen nag ñaar yi ñooy remplacé ñu ne ñoom ñoo lank ñoo bañ duñ ko jël. ñu ne ma ne nag te ñoom ñoo tooñ ñoom ñoo jaxase liste bi ñoom ñoo jël list bi lu Déthié Fall euh, déposé woon pour le compte de Yewwi Askan Wi département Dakar ñu jël suñu liste jaxase suñu list ñu changé liste yi nag lu amee ñu ba tey minuit ñu nekk ñoom duñu jël comme duñu jël je demande au peuple de Dakar de se mobiliser wax ji mën na ñàkk. voilà donc fi euh, jeex nañ le maire Barthélémy Dias jox na rendez-vous à la jeunesse dakaroise voilà pour ñëpp ñëw ñëpp ñëw fii ci direction générale des élections voilà